feneen wala téléphone silencieux. ah ko may 15 minutes tàng de. ah waaw ok c'est bon su ngeen paree ñu commencé ah. internet yu bàyyi xel suñu différentes plateformes lu ci mel ni univers info Rewmi Buzz 221 Dakar Plus waaye tamit sans limite ah, bienvenue ah nag gis ngeen ki ñu dalal fii actualité oblige saa su nekk li nga xam ne mooy actualité ñu koy waxtaanee délégué Amar ah, délégué bu Wali Seck ah le petit frère de Cheikh Amar sama copain. Mhm. maa ngi lay ziar ah, di am mbégte jàkkaarloo. yaa si jàmm Paco bu Dakar live. yëpp. Ah. ñu ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di nuyu yi nga àndal ah. boo tuddee Gallo rek tudd nga yéen gars yi. effectivement donc di siyaare ñëpp mm-hmm. bu baax a baax. macha allah macha allah di ñaanal sëñ yàgg fi loolu te ànd ak wér. Mm-hmm. di ñaan xam naa nag tey dinañ waxtaanee point yu xam naa mm. du ne gis nga ci dëkk bi mais point par point la ñuy commencé bi ci njëkk mooy da nga def benn sortie Euh, di gaaral peut-être moom mu jàpp ne moom ngay waxal mu Queen Biz mu génn euh, jël sa vidéo boobu euh, partagé ko ci page Facebook am tuddee la Fou du village. loolu da lay wan daf maa nopp rek te nopp ma ko. ah bon ah mais moom ma jotoon muy jël sama vidéo di ko dugal ci compte. moom nee na yaay Fou du village. waaw mais Fodé Fodé village boobu moo koy rey xam naa moo tax mu jël ko dugal ko. parce que jàppale dafa bari. man de mosuma ko dugal et cetera mosuma ko dugal sama benn compte. waaw intéressé ki nag bu la intéressé yaakaar na xam naa ne dama ko intéressé moo tax mu jël sama vidéo dugal. mais est nekkul tamit wax yi ngay wax mu jàpp ne moom. wax jooju bu ko ah. wax ay waxam sànni nga jël ko moomale ko sa bopp. mais xam nga tout le temps moom day jàpp ne yaa ngi wax te wax yi ngay wax peut moom moo ko moom te nit ku wax ay waxam nga jël ko moom la ko sa bopp moom dèjà li mu def noonu rek mën naa ko cee topp ci yoon mais man du hmm. ko ci sa page tam tàgguwuma. ok waaw. da nga ko jàng nga. na jàng nga kii. sa image daal partagé ko taw amul si. amul droit amul mais yow am nga image ba pare sa image mu ngi fi. non mais amul droit jël ko dugal mais man du ko ci topp dara. dafa ko bàyyi rek damaa xam ne noom na ma rek mbëggeel moo foor rek. ah bon nit ki te nobu la da da ngay sonn da ngay sonn waaw ok léegi boo nobee nit ki te nobbu la da ngay sonn mais yéen ñaar dafa mel ni dafa am lu ngeen denc leen ci seen biir denc lu ma ko daara moo réglé wul rek di kaas di ah, classe waali moom dafa am fu mu fa di classe waali di classe ay euh, Youssou Ndour ak ay Macky Sall ay Sonko ku ne ma classe uh-huh. ci dëkk bi déet tekkiwul dara nag dara tekk ci ah, moom mu nekk artiste gars yi xam ko at kan la. Ah, yow doo doon déglu ay woyam. billaahi musuma déglu def naa ak Wally de clip fii fii la ñu fekk yàggul dara. loolu loolu mooy ah loolu loolu moom moom. moom loolu nag kaay wax la. Ah. na ci Wally de. Ah xoolal yàlla xam na ne topp na ko ci ay ati ati at pour defat sa waay duo boobu. Hmm. mu gi sax am na fu ma ko fekk muy raam di jooy benn jour. kon la woon parking bi Wally toog mu ñëw fa. Mhm. di saraxu di saraxu ba nga xam ne. pour man sax da doon ñaan dimbal jour boobu laa ko njëkk a gis. moom gel bi waaw. ok ma yëkkati di ko jox ñu ne ma noo du lii dafa bëgg sa waay tourneel ko àndal moom benn bio. awoo ah waaw. loolu moom dama génne di ko jox. defee ne bu yàggoon bëggoon la reebam la woon ma reebam la woon lu mu yàgg bëgg. mu ma ko gisee muy taxaw di kii ma dem làmb sama si jox waale pour mu jox ko ma ne ma noonu sool bu ñaanu ndimbal quoi dafa bëgg a tourné at man. Ah. ma ne ko may ko ko. mais mais mais mais topp na ci nag ay ah, mhm. topp na ci de. looloo ko dimbali sax looloo ko may li mu am. li mu am waaw. Ah. ok mais mais mais moom digganteem ak Wally dafa mel ni am na benn problème bu ci am parce que bi Wally demee Dôme de Paris feesal ko def gis a fermé coow li bëri mu wax petit con moom génn na ah leneen leneen tamit amaat na ci coow li noonu. non moo amul lu Wally di digg mu diggante Wally dara newu ci parce que Wally nawloo woo. ok Wally nawloo woo muusuma ca kër waale sax nawloo ko <laughs> loolu kon kay amul lu waale li muy am ci diggante waale yooyu ku ñu nawloo moo war a am diggante nit ak nit mais ku kenn nawloowul ah, diggante nit ak nit amul voilà état bi nawloowu ko mhm. jour yi muy topp nawloowuñ ko ñun ñi nga xam ne ñooy peuple Sénégal nawlowuñ ko ok am nga si ah, droit waaw am nga si droit <laughs> am nga si droit damay dégg international xaw ma lan nawet jour yi football nawetaan xaw ma déet ay jour yi football nawetaan waaw boo yooyu lay topp ay diaspora xaw ma lan boo yi football nawetaan luñ tudd xawma ke xaaral laaj. ay diaspora galo daal lay toog. ok ok léegi loolu leer na mais euh, Wally retour am Sénégal mu def benn sortie 2S. Mhm. ñëw di waxtaanee ci Dôme de Paris yi diggante mag ñenn ñi mu sol ay dàll dàll yi indi polémique ñenn ñi dal yi dafa am ñu nga xam ne ñoom lañ koy méngool maanaam borom ñaari tur yi euh, coow li nag bëri na kenn ku nekk yaa ngi ciy wax sa xalaat ndax Sénégal nag dëkk coow la dëkk polémique la moom tamit artiste la c'est normal su solee dara nit ñi wax ci. waaw moo tax déet luy moo tey. képp kuy képp kuy Faramareen tamit moo tey. déedéet. si foo ko teg. parce que xam nga yéen Sénégal daal dafa neex yéen. Hmm. artiste am na droit sol couleur bu ko neex. Hmm, hmm, mais ta déglu rek déglu rek. mais du couleur borom ñaari tur ndax fii du réew moomu. comprendre ngeen defoon na ko sol na benn tiset loolu jàll na weesu nañ ko. comprendre nga tey daal yooyu yéen bu ngeen ko xoolee yàgg gis couleur borom ñaari tur yi war ngeen xam ne lii at lee te nee na dégg ngeen ko nee na bi mu koy jënd am na kilifa gu mu àndal ñoo bokk fu ñu jëndee sax ay daal waaye léegi kilifa gu dina dugg fu am ay drapeau borom ñaari tur mu fay dugg di jënd daay leen loolu daal yooyu couleur bi bokkul sax jegewu ko moo tey moo tey daal waaw mais mais léegi kon lan mooy problème ku mu naqaree it ku mu naqaree it ku mu naqaree it nga mat sa bakkan boo jotee man dégg nga xam la moom a jaaxal yow yow bu ñuy classe waali doo nangu ñu classe ko da nga koy taxawal mais bu ñuy classe keneen nga lan lan lañ koy classé non dama jël loolu dama dama. non waaye amul lu ñu koy classé ci lan lañ koy classé. mais daal yi du coow loolu du débat. ah gaa ñoom da leen xam nga yéen tey jii ñu di ci wax yéen a leen di may bëri. Mhm. bu ngeen leen ignoré woon loolu du am parce que li ñu wax amul bopp amul génn ay dof lañ toog seen internet bi di fen rek di dajal. donc jàpp nga ne daal yi dara nekk. dara nekku ci moo tey man sax daal yi bu ma ko mayoon ma sol ko di doxantoon moom. maa tey mais dañoo gis seen gouvernement bu bopp li coow li bëri bëri bëri yëpp amuloo na yow député la la def. moo tax opposant laa taxawee tànkuwaay taxawaay maa ngi xool Toumani daal fekkee mën na maa def man nekk Guy Marius Sagna am daal. Hmm. dégg naa Toumani mooy opposant bi gën a kii foofu. ci ci parce que dégguma sama bopp ci gouvernement bi. donc su ma déggee sama bopp nag ci gouvernement poste gouvernement bi lu ñu ma ci mën a jox poste boobu naa hmm. waaw ok ok mais démb. député député mënu ko baax nekk député. mënoo nekk mënoo nangoo nangoo doon député. non député loolu poste la nga bëgg a jël ministre de l' intérieur. non l' intérieur sax attu ñu ma ko. loo bëgg a jël. ban ministre laa war a mën a dul sax. ministre de la communication des finances yor wàllu koppar gi wala nga gérer communication bi rek comme yow wàll lu ñu ko def nga génn jëlal ko défense. non loolu communication bi non non communication bi am na am na ministre communication ak porte parole comme ah. euh, Omaro at euh, kii ah. waajum du Youssou Dieng. wala ñu yóbbu la ci saaj yi rek parce que yàgg nga fa. dañ maa def avocat rek gën. ah <laughs> avocat. waaw kon yaa métti El Hadj Diouf. voilà <laughs> jeex na. dañ ma def loolu rek. Ah, bu boobaa kon gars yi député baax na député da ngay nekk assemblée di ko ruube rek. parce que kon bu boobaa gars yi di génn tout le temps. ñëppay réglé dañuy parce que génn gi day bëri si yéen saa di wax loolu neex. non xam nga tey. Ah. foofu sax bëggoon naa ci leer. ak ah. temps yi gis nga ni gars yi dañuy génnee. wax dafa bëri. d' accord mais bëgg rek moo waral ñuy def loolu. waaye Sénégal fii képp kuy def interview di classe di jàppale Wally hmm. wala di ko défendre hmm. man maa tax ah lu tax wax loolu maay ki njëkk a défendre Wally ba muy metti ci fit wi hmm. ndax amuñu woon fitu génn di ratatari de kenn amul génn di ñu classe Wally nga ne damay dem interview pour jàppale ko déedéet képp ku génn di interview nan day jàppal dañuy défendre Wally ci Modou Amar nga ko gisee moo la rof doole may la fit ba tax nga am sañ-sañ ba ñoom it nag ku ci defati interview na ma woo laaj ma ma wax la ni nga war a waxee bala ngaa dem di song nit yi tamit na nga ma laaj ma ma leeral wax la après nga dem doo ko doxal parce que ñoom ñëpp maay seen patron ñoom ñoom waxkat ñoom waxkat yi it kaasal waal yëpp maay seen patron ku la ko fal maa ko fal sama bopp man je suis le patron ah. neex na de ah. maay seen patron góor ñi jigéen góor ñi jigéen Mbacke gaay góor ñeet ñi képp kuy défendre waali képp kuy défendre waali ci internet bi moi je suis le patron ah kon leer na waaw kon bu ñu waxati. noonu la ñu waxee ci français waaw voilà. ok ok mais dañoo gis euh, démb Vogue ah, si sama trompe pas ngeen am gan gu bees muy euh, Souley Awa Laye yéeg di battre balaa Ballago Seck ci biir wooy bi Wally na la mel ni comme si que dara am lu mu lay wax ma ne délégué yaa ngi lijjanti lépp maanaam ñi demoon sax yaa ngi la ñuy indi wax ji loolu lay firi benn instant. waaw xam nga Jules Jules Awa Laye moom. Mhm. Euh, dafa mérité fi mu ñëw rek parce que nit ku baax la. ok donc dafa nekkoon ci benn mbir moo xam ne fa mu nekkoon baaxul. si baaxoon na de si taxaw rek. non parce que foo nekkee ci ay nit yu bon. Ah. nga da nekk nit ku baax duñ na mën a nawloo. parce que dañuy jàpp ne nit ñi ñee bon ne yéen a bokk jikko fekk bokkuñu jikko te Jules Awalaay nit ku baax la foofu du place fi mu ñëw mooy place am. fi mu nekkoon baaxul baaxul du foofu du place mooy label boo xam ban label sax. maa ngi nuyu waa Subatel di nuyu waa euh, nu ñuy wax musique di nuy waa Subatel sama xarit bi nga xam ne moom suba heure Subatel rek lay jóg moom. boobu moom it nekk ci label yooyu baaxul daal. Hmm. dañ yàq dañ lay foofu rek ubbeeku leer nañ. non mais bi muy nekk foofu si la dem États-Unis nga naan la non no non non. bi muy nekk si fekk. bi muy ah. waaj a dem États-Unis rocceeku na. mais lépp génnul woon. ok voilà mu rocceeku nag nànk ci pet. bunt yi ubbeeku. waaw bunt yi daa tëjoon. waaw wërsëg bi daa tëjoon baax bii daa ko fa dem ñu tëj la. lay wax ni. foofu ah, baaxul fa nekk ñoom ñu ngi def. gisuñu seen bopp de. maa ngi conseillé tamit artistes yi. waaw ku ci bàyyiwul way ba six heures. Hmm. doo am dara ci musique. yow bàyyi bàyyi tooñ. non non non damay wax dëgg rek. gis nga nit booy woy bo gorel soo commencé trois heures wala deux heures ba cinq heures sax nga mën a bàyyi julli ji wala nga sóoraale ñiy nodd wala ñuy julli képp ku ci woy ba six heures ma matin moom doo am dara. ah bon da sonn ci musique bi. bëri na. ok loolu leer na léegi nag du léegi dañuy dugg ci li nga xam ne nag moo gën a fës instant bi nit ñi di ko waxtaanee mu nekk su la toile muy audio Kouthia yeeg ki nga xam ne mooy. ndeysaan ah, ndeysaan coow li bëri na. Euh, Kouthia moo def deful gis nga kenn ku nekk ci def sorti ak Amina Poté tamit génn na ci wax ci bay jooy def tamit ay révélation nan nga gisee. moom lu muy jooy moom. mais liñ ko tuumal parce que. dañu ko xam nga tey jii diwin la moo Viviane doomu Viviane. xam nga tuuma yàgg naa am ci réew. waaye nañu fexe ba buñ lay séntu ci gaalu xaj buñ la defee dëgg loolu am solo. tuuma moom yonent bi gën ñëpp teg nañ ko. la donc bu la ko tegee. na nga ànd xolub muñ te xam ne yàlla moo ko teg natt boobu. benn mooy yërëm naa ko caa ci benn côté. ndax di ma dégg ñu ni jabaram la. waaw waxtaanu biir nekk diggante jëkkër ak jabar dafa yaatu. ndax lu ne ci am. yàqante seeni waa waajur sax mën na ci am. <laughs> c'est vrai ndax diggante jëkkër ak jabar la. waaye ndaw si génne vidéo audio yi partagé ko. Hmm. mooy jigéenu Iblis. te yàlla dafa xool li ñu gën a bëgg muy jigéen ak xaalis mu jël saytaane def ko seen biir bu dee xaalis seytaane la bu dee jigéen dafa làmboo saytaane ndax mën nañoo defar mën nañoo yàq dëgg jigéen mën naa defar mën naa yàq ku kaso jigéen wala xaalis moo la fa donc kon tey jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi nga xam ne li fi am musu fee am war nañ di xoolaat seen njaboot gi ñu war a am ñoom après ñoom seen doom yi ñu war a am xam ne seen doom yooyu it war nañoo mën a doon dara ci réew mi bu ñu xalaatee ne seen yaay de moo toroxaloon diw ci réew mi gàcce lay nekk ci seen doom ndax alal bu mu leen jaral yenn yi bu dee dañ laa fay un million deux millions doo ko lekk un mois deux jours nga koy lekk wala trois jours mu jeex xaalis bi du dara nga yàq nag léegi dem bon gis nga nag góor moom kenn mënu ko yàq tey jii nga gis benn muur ama ñu génn ay awraam ci mbedd mi bu mu ah. leen def moom leen du ma metti ndax day xëy mu jeex góor la ah. te góor bu seqee jigéen lu ne xew na fa hmm. lu ne man naa xew diggante ñaari hmm. gel hmm. comprendre nga kon tey bu ngeen xëwoon gis bu mu daa mar awra am bu mu leen metti ndax man du ma metti lu ne jaar na fi fii lu ne am na fi waaye nag ngeen gis moo da amar sa gët góor di moom na leen metti kay bu ngeen ma mënee taal sax xee taal ma ok ci li nga dugg noonu sax la ñuy waxtaanee maanaam audio yi dañ cee dégg benn boo xam ne moom lañ ne ko caa moo ko wax bu tudd ba tudd li nga xam ne mooy turu Pape Cheikh Diallo borom ñaari tur yi coow lu bëri ah, wax waaw lu tax mu tuddee ko loolu. Ah, mais ci ci ay tuuma. yàlla rek xam xamuñu. ojo bi génnee démb ñun ñëpp ko dégloo déggandoo. waaw xam nga tey jii tamit audio bi génn mais yéen tamit journaliste yi am ngeen ci part de responsable. amuñ ci benn part de responsable xaar xaar rek Kouthia Sène naataangul métier bu baax suñu doyen la. tey bu amee lu mel nii. Mhm. am na site internet yu bëri yoo xam ne bu leen ko joxoon sax waruñu ko mën a dugal. site internet dugalu ko sax. xaaral rek taxawal rek. waaw mhm. ah, dugal ngeen am na audio dem ngeen ndaw jël ndaw si. audio yi TikTok lañ ko xaaral rek. Uh-huh. dem ngeen jël ndaw si muy lëfër lëfër yi yor mi ko rey non déclaration lay def waaw mais déclaration di lëfër lëfër yi wax yoo xam ne ay waxu di menace gis nga nit uh-huh. même bu la tegee lu gën a métti si àdduna uh-huh. bu nekkee ci naqar bul ndamoo naqar loolu mu ne ab jullit baaxowul loolu naqar lu ko bàyyi ko suñu borom te xam ne suñu borom ëpp doole ñëpp comme naa nga gis naa moom naqarlu affaire bi ba pare am mbégte ci li dal euh, Kouthia waaw jigéen moo toll foofu. waaw moom laa la wax ba pare am mbégte ci li dal Kouthia yéen nag part de responsabilité bi mooy. Uh-huh. damay gis tey. Uh-huh. ñi nga xam ne nekkuñu ci réew mi fii Sénégal. te duñ teg seen tànk fii ci réew mi. la xalaatuñu ko sax. tekkiwuñ dara tekkiwuñu tus. la jël seeni téléphone di def live. Uh-huh. di yàq suñu doomu réew. ñi nga xam ne ci réew mi la ñuy yeewoo tey bëggal doo waa réew mi. Kouthia bëggal na ku ne. malade bu tëdd Kouthia bëggal na la. ñi ci prison yi Kouthia bëggal na la. tey kenn nekk fële ñun site internet yi nekk fii ci réew mi war a protéger waa réew war a protéger suñu réew ñooy jël euh, tey live am yooyu di ko partager ci seen site internet yi. ok d'accord naa ci point boobu. man loolu rafetlu wu ma ko. parce que xam lu tax. kële mhm. du ñëw fii. waaw xalaatul teg tànk ñu rëq ndigam muy euh, nu mu tudd Tunkara. Mhm. di Mora mhm. di bëy wi nu mu tudd xaw ma nu mu tudd bëy wi. si ket bi waaw. di ah, ñeneen ñeneen ñooñu ñëpp kenn du teg seen tànk fii ci réew mi. déggul ma kenn du teg sa tànk ci réew mi léegi yéen waru a may ñooñu accès sax ñu yàq doomu réew mi rawatina koo xam ne euh, maanaam euh, nu ñu koy patriote la suñu réew parce que yóbbu na drapeau Sénégal nag fu ne yàgg naa bëggal réew mi uh-huh. am uh-huh. moom kooku def live di wax lu ñaaw lu nekk ci kooku site internet li nga xam ne yéen kooku bokk liggéey bi mu nekk journaliste la ngeen jël ko partagé ko ci seeni site internet mais mais est-ce que tamit Kouthia rek lu mu yàgg-yàgg nattu la bu ko dar rek waaye bu paree ba reprendre ba nekkaat nit uh-huh. dina am lu ko metti ci digganteem ak ay journaliste parce que borom borom kër la sax borom kër la dina am mën na cee jaaree sax dee nii ku caa mag la nag mag la moom jabet alaaji abu daa jabet trente ans carrière moom ah, bu déggee nouvelle mel nii tension bi yëngutu jabet ba day yëngu day fanaane hôpital te lii dafa métti sax daana ko xañ na bu dee sa bu dee acca mmh. maanaam ci Amina Poté ni mmh. euh, mmh. bu tudd Marlon nee mhm. na këram la ko bëggoon a yóbbu pour sàkk ko. waay waay démb ko bëggoon a yóbbu. ko bëggoon a yóbbu Amina Poté. mu am sàkku Amina Poté. mu sàkku waaw mi ko doon expliqué plusieurs tentatives. Mhm. te li mu génn TFM ñëw ko doon expliqué est-ce que. Ah. nekkul na Kouthia dafay door di feeñal wala wala li nga xam ne daanu ko def doomu aadama yi mooy door di feeñ jaaree ko su fekkoon nekk que Kouthia mhm. dafa waxoon ñu bëri vidéo yi kenn ku nekk yor nga yor ma yor ma yor te ku caalaa doon waxal te du jabaram ñu xam ne loolu lu mu yàgg def la mais jabaram la doon waxal lañ lañ wax noonu jabaram voilà moom lo loolu lañ mën a jàpp ex jabaram la ndaw si moo war a mën a génn leeral ak ña demoon ñaani comprendre nga <laughs> ak ña demoon ñaani moom bu fekkee jabaram la doon waxal uh-huh. am na droit waxal jabaram la ko saf uh-huh. bu ko neexee sax yàq yaayam déet moom jabaram la waaye nag ndaw sa maanaam moo tax man boo waxatee yow sax lu leer laay wax ak parce que wóorut comment nga amina cent dix audio loolu moom ay wax la rek cent dix audio nit mënul enregistré chaque jour chaque jour bu dee cent dix audio la moom def na cinq ans waaw léegi man boo déggee li nga wax noonu ne daf ko yóbboon pour ko comme euh, doon ak ku caa moom bëggoon a sàkku amina loolu yàgg na moom mosu ko wax mbaay ba tey moo ko ba léegi mu toog ba tey problème am mu koy wax mm. amul sens mais est-ce que tamit dafa si si amul sens amul amul sens xuloo woon nañ fi. waaw ñëpp jot ci. yàgg nañ xuloo lu tax seen xuloo boobu moom génnul leeral ne kii nangama nangama nangama nangama. mais doo bàyyi ba tey ngay profité naan yóbbu woon na ma pour saako ma saako ba wóoru la ba xam saako na ko wala saako ko. Mm-hmm. bu ko saakoo du génn fii na saako na ma. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord néeg moom góor ak jigéen bu ñu fa xasee tëju. du génn naan man mos na ma wala mosuma. loolu yàlla rek xam ak ñoom ñaar. moom mooy wax ba léegi mais comprendre nga non waa wax na moom lay actualisé non waxuma comme comme li mu wax ci poté li mu wax noonu ne moom moo ko wax hmm. ne sàkku bi xaw ma la voilà wax gu ci li hmm. kay moo génn rek ne moom yóbbu woon na bërëb sàngam bu ma sàkku depuis que tamit tuuma ko tuumal la loolu setal deram waaw xam nga ma tuuma yàgg dafee am sama waay waale mii lu ne lañ koy tuumal Youssou Ndour lu ne dégg ko Youssou lu ne dégg na ko hmm. mais nee naa la buñ la séntu ci gaalu xaj fekk la ca nga cay lekk dëgg la loolu moo am solo. fii ñu ngi fiy tuumal ay lesbiennes ay góor jigéen na de. ak ko bëri showbiz bi moom ñu ngi koy man mii nee nañ man damay fayoo am na ñu ma koy wax. Ah waaw nee nañ man bu mag laa la wax ni waaw il faut que ñu kii. barke sëñ Tuubaa. loolu maa ngi loolu gars yi dañ gis nga bul sax sonn commentaire sax ngay dégg ñu ne kii góor jigéen la. moo ñoo noonu bul la tegee lu mel noonu audio ya léegi audio ya nan lañ def ba génn ndaw si moo ko génne si lu ñu wax lu tax ndaw si génne ko chantage léegi ndax moom voilà léegi euh, poto dafa toog rek jekk saa dégg audio yi moo woo leen ne leen ñëw leen demee dafa dégg ni baa ngi noonu mu <laughs> mooy mooy audio léegi moom léegi déglu rek mm-hmm. xam nga tey jii moom dafa dégg après mu ni day dem défendre jabaru jàmbur mm. lu ci yoonam du maanu ana maanu waa rek ana maanu waa léegi moo tax deal bi lu ñu yàggoon a togg la man sama jàpp ah, loo xam ne man sama gis-gis lu ñu yàggoon a togg la parce que mbir mi dafa gaaw audio yi di mu génne point de presse bi dafa tempéré quoi voilà ci même jour bi la nit nag voilà lépp dafa gaaw maanaam yàggul dëgg sa rëx la daal dëgg li ma jàpp mooy hmm. su dee ndaw si mayi Sénégal gii dañ ko war a jàpp tëj ci kaso bi mu jàpp dañ ko war a jàpp mu génne ojo yi nan la def ba partagé wu ak kan la ànd na ci bi ba ojo yi partagé wu donc yow jàpp nga ne parce que cent et quelques audio nooy xamee ni bii audio Ndeye Ndack la wala bii audio Bijou la wala bii audio Modou Amar la nga tànn ci benn rek génn ko mu tas léegi waaw léegi dégg nga tànn benn rek génn ko mu tas tànn beneen boo xam ne ma ngi wax nit koo xamante ne ni que ndem si yàlla la ah ngir bëgg gonfler affaire bi nga tànn koo xam ne ñeewantal day am ci diggante kooko sénégalais yi parce que audio boobu rek day ga day blessé sénégalais yu bëri ndax nit ku ñu wan nit ku ñu wan gannaaw ñu déggaat ay wax yu ñaaw bu jógee ci moom sénégalais yi dañuy jël mooy jël toor jox ko ca ok loolu ba mu koy wax boobu waa ji mu ngi dund mu ngi dund waaw si koy wax mu ngi dund boo ko dégg mu ngi dund la man sama gis-gis ok te bu ma nekkoon bu ma nekkoon enquêteur bi dil bi ñi ci nekk ñëpp laa jàpp yoo koy ubbi nga enquête fu bi ñi ci nekk ñëpp laa jàpp muy euh, nu mu tudd bu porté plainte moom ci boppam ba enquête bi am mhm. nañu jàpp ndaw si ndaw si génne leeral nu mu def ba affaire yi fuité voilà leeral it ba xam Mor Kouthia dañ doon sëy wala sëyuñu imaam yi demoon ñaani ñu génne leen ñu leeral lépp fekkee diggante jëkkër la ak jabar nag waxtaan <laughs> loolu yoon kenn nekku kaa boobu dina daas diggante jëkkër ak mhm. ko waxtaane yoon kenn ci mhm. ndaw si kay moo nekk ku juba di def ay enregistrement rek mhm. dem partagé ko moo tax dëkk bi léegi voilà voilà ma ngi noonu surtout amatu fi mais am na benn benn côté yaa ngi blâmé d'accord naa ci mais Kouthia aussi est-ce juumul le fait muy dégganteeg Adamo mu koy enregistré di partage waat bi mu koy expliqué leen kaam Kouthia tamit dafa juum ak Kouthia nu mu toll ci dëkk bi di jël ay kaam di ko waxtaan ak Adamo aussi. gis nga tey jii moom Adamo moom. waaw donc astafurlah auzu billaahi mina seytaane <laughs> bu baax di tuubal bi ci tudd amoon sama ay bu ko mënee partagé na ko partagé su dee xaar sama appel rek du ko jot. waaw yàlla ma ko. moom parce que waaw fii. suñu ñaata doom yu réew yu jigéen la yàq seen der suñu ñaata doomu réew yu góor la yàq seen der ba pare nekk réew ma fële parce yaay nekk fii ci réew mi mënoo koo gis parce que gars yi ko jox benn importance mooy loolu rek tey bu fekkoon ne daa def live kenn seetaanu ko ci sénégalais yi wala benn site internet daggul live am dugalaat ko su boobaa du am benn importance su boobaa kenn du ko xam mhm. la mais ñun ñoo ko may. voilà tey jii benn noonu délégué Amar fekk délégué Amar di sangor yi mu dugg seen ak gon yi doo xam léegi na mu am naa dossier woo Adama. Mhm. asu billahi mina seytaani maa ngi jégalu yàlla ci tudd. que dee mu ngi bëgg a woo béy wi jox ko ko. <laughs> comprendre nga béy wi yor làmmiñam di ratatati toog fa mu toog nag eh. yow sa réew di am problème. nit ñi di wut ay noon ak i noon ak i noon. Hmm. réew mi jàmm moo fi musu am. musul am ay noon fii. mais influenceurs yi nekk Europe ñoo yàq suñu réew. mais ñun ñoo ko nangu. mooy li ma la wax rek ak yéen journalistes yi partagé seen i ay vidéo tey ku ci mel ne kë fooxul la foofu tam nekk fanaan lañ kooku li muy yàq suñu sëriñ bi. kooku dama ko sax seetaan. li muy yàq suñu nit ñu baax ñi. gisuma ko. li ñuy yàq suñu sëriñ si. Mm-hmm. yéen site internet yi dañuy jëlaat sax loolu di ko partagé. Mm-hmm. te au lieu que gars yi défendre man man Modou Amar xam nga ban léegi laa jël uh-huh. koo xam ne yaa ngi yàq suñu sëriñ si man dinaa jël samay responsable xeex bii moom maa koy xeex loolu lu baax la man maa koy xeex man Modou Amar muy muy muy Tunkara Mora Mor Gueye di waaji kësu fot ak uh-huh. keneen keneen nañ ma xaar maa ngi seen kaw ñoom ñëpp taragalu uh-huh. ma ci dara dee benn yoon la ku ko def dootoo ñëwaat foofu leer na léegi ci diggante Amina Poté ba Kouthia bi xam naa foofu la ñuy tëjee tey jii ban taxawaay nga ciy taxaw en tant que délégué Amar coow li taxawaay bi mooy ñaawlu naa kàddu yi nga xam ne. Mhm. am na. Mhm. ci Kouthia. Mhm. yëkkati ko teg ko ci ay doomu aadama. te tegoo ci sa bët. ñaawlu naa loolu. ñaawlu naa tamit. Amina Poté génn gi mu génn. di ndamoo li dal ci kaw mbokkum jullitam. tamit taalibe Sëriñ Tuubaa li mu benn donte bu dee benn fan sax. Kouthia ko indi TFM. Mhm. loolu la wax bu dee benn fan sax teraanga la. bu mu ko xeet mhm. teraanga la ndax au moins jëlee na ko ci bërëb indi ko pour mu liggéey mhm. ngir tedd dimbali ay waajuram. comprendre nga beneen bi mooy moom warul woon a génn di ndamoo loo xamante ne nii que dal na ci kaw mbokkum jullitam rawatina mbokkum taalibeem rawatina collègue am rawatina ki nga xam ne moo ko indi ci bërëb ba muy liggéey ba tax ko xam ko. ñaawlu naa kàddu yooyu. am na teg nañ ko tuuma yoon ma ngi fi uh-huh. na def yoon uh-huh. bu jëlee dossier bi yóbbu ci yoon ba yoon àtte mu ne ah kii de def maa tegoon tuuma bi mais jégal naa ko bàyyi naa ko yàlla mais dafa sës moo tax mu génn def non non lu ñu guuxoon na rek man jàngat man guux laa ko jàppee benn mooy dil boo xamante ne ne ko bul xaw a yaatu la moo tax ma ne enquêteurs yi bu ñuy enquête uh-huh. lépp dina leer ah Sénégal de mu am na enquêteurs yi na ñaawlu naa kàddu yi Kouthia yi ndaxte nag moom bañ demee bay génne sax waroon nañoo xool ndem si yàlla si nga xam ne faat na ay mbokkam nekk fii ci réew mi di dund am na doom xaw ma amul doom yaayam a ngi fi di dund ngeen génn ay wax ju ñaaw yoo xam ne kooku faatu na ngeen koy jëmale ci doom am na benn sërëm bu génn ma ngi noonu ma ngi noonu léegi kooku audio boobu rek mënoon ngeen ko suturaal sax ngeen denc ko mm-hmm. ngeen nëbbu sutura suturaal ko rek denc audio boobu ndax kàddu yi ñaaw yooyu dem nañ ba tudd ci seen booy bu sob bi nu mu tudd mbay waaw mbayit dafa teel a génn di répété daa a bàyyi di génn di wax di jël ay engagement ci lu mu mënul jël engagement moom journaliste la na yem ci journaliste ah loolu lay comédien la rek ah kon comédien na mais attends yi ma ngi leen di gagné de non non du journaliste eh, eh. moom loolu la ba tey yéen a organisé rek tey jii li ngeen lu mu kii la waaw lu mu wax nii kii sëriñ la donc kii sëriñ la booy sëriñ bu ñuy bi daa julli ci géej lii dama ko seetaan moom moo ko partage ah, waa jooju ko partage waa ah, jooju ngeen wax moo ko partage gis naa ko fu mu jullee nii dëgg géejum naa yaan bi xam nga yii montage yi ngeen def ñaa ñoom ñaar sax nduroowuñu xam nga moo ko dugal ki ngi wax la moo ko dugal waaw waaw ñu teg ko ci suuf rek mu kii nañ bàyyi seen xel mi ñu coxutaan waaye lan moo ko dugal ki ngay wax noonu keesu fus xaw ma kii xeesal ba loxo mi ba kii bi di génn nii sidit sëriñ la sëriñ la kii xeesal ba sidit di génn mooy sëriñ mooy ñëw pour ñaanal si waa Sénégal lañu wax te lee ñëw daa yor dañoo bëri xanaa délégué la nga conseillé mbay ñi ñi ñoo mbay li ngay conseillé mbay am na solo trop ma koy conseillé bu ëllëgee bu mu dugg ci détails yii bi bu mu dégg teel rek na damm na na toog xaar information bu ko mënee jàllale mu jàllale ko bu ko mënul jàllale mu jàllale parce que day wax ba wax ma ngi wax dèjà dégg naa mën nañu ko porte plainte dafa mën a la na bàyyi yooyu kenn amul am de yi gis nga bu crime amul mhm. nit amul droit di la jëli à partir de vingt deux heures sax amul droit dugg sa kër di la jëli te crime amul defoo crime. avocat la nag. Uh-huh. comprendre nga. amoo crime defoo crime rayoo nit defoo dara loo xam ne joxuñu la sax convocation nga bañ a wujji wala dara. Mm. ba mu am droit ay deux heures à partir de minuit di dugg sa kër naan da lay jël si. pour lan nit. bi eh, mu suturaal. an yooyu. mais kilifa ah. amoo droit defal sa jabar vidéo waaw. ndax exemple rek laa joxe. Adamo jabar non déglu rek non non amoo jabar. <laughs> daal journaliste yi <laughs> ah vidéo bi la. <coughs> man wan ko internet non man du def loolu. Ah. wane ko yow. <laughs> wane ko mais ku caa deful dara dafa yor vidéo bi nii rek. non nee na day bañ woon ko ñu ñu signalé compte bi waa loolu wax quoi. ndeysaan. ah dënn la wane de ne dënn dong la wane. waaw waaw dara ne ko ci jabaram la. dafa jóge jabaram la ko yónnee. après dafa jógee entraînement rek di wane. waaw am na droit kii takk ay veram dafa jógee sport di wane dënnam jàppam lay wane. dafa jabet voilà xam nga jabetee da xam nga jabet bu ceene yombul. yombul te dafa ceene rek loolu la rek. <laughs> mais lii dara hmm. moom duggeewul TFM pour promotion canapé wax na day mandi day naan est-ce que coow bii nii. koo xam ne balaa ngaa dugg di am foo jaar gars yi picc la nga soog a dugg. comprendre ma. promotion canal bi. xam nga loolu maanaam ma bëggoon. Euh, <laughs> ma bëggee poste. olof moo gën a gaaw. chartes yi ngay jaar waaw foo gars góor buy jox boppam ay góor. jigéen non jigéen. ah ok ah ok comme jigéen bu ñëw joxe boppam doog di. dafa liggéey waaw loolu ku caadu jigéen. xanaa daa jigéen yu nekk TFM yi bëgg a waxal. ah moom dafa war moom laay wax xam nga ñoom dañu nekk ci benn télé Youssou Ndour moo fa nekk moo war a raxas TFM hmm. wala mu ñëw ci patron Cheikh Amar mu laaj TFM lañ ko war a doxalaatee xool rek xaar mu laaj te eh, nañ la ñu war a doxalaatee TFM comprendre parce que TFM xamee wuñ ko woon yi ñàkk fayda yi hmm. te am na yenn emploi yoo xam ne yoo xam ne dañuy saltel sa sa image sax yow mi yow mi borom kii bi hmm. parce que moom wurta toog naan ñëwee ma ci télé bi ngir bëgg nar promotion kan kon day mel ne Bouba Ndouroo Ilima patron bi nu mu tudd. Ndiaga Ndouroo ñoom ñëpp. tey ñoom ña moom bi di jël ay employé ba la ñuy jël nit faaw ñu jaar ci kaw ba pare dafa mer rek peut-être loo mer mer mer da ngay war a bopp koo xam ne boo waxee sa wax bal la comme naan nga bokkut ak waaye waaye bu jógee fa la rek wax nga nekk ci télé ba pare ne ñëwewoo ci télé bi pour nangama kon am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci télé bi mais loolu lañ fa ñëwee loolu tuuma la bu mu teg waa TFM mais waxulu ko Kouthia parce que Kouthia góor la te Kouthia ko fa indi lam ko cee xat Kouthia nag ba indi ko fa ñoom ñaar ñoo ko xam moom wax na ba pare de mais bu Kouthia génn noonu est-ce que du gën a garaaw ah moo tax ma ni wax ji moo war a amul ah, loolu soxlawul détail nit bu la tegee ba ab murit nga te woote nga ko nee na nga ko yaru nga bàyyi lépp at yàlla yàlla day attewaat waaw lu leen dégg na ko sëñ Tuubaa lu ne la sëñ Tuubaa dégg bi lu ne dégg na ko ay mbokkam génn nañ ko lu ne def na ko mais loolu kay ah. Uh-huh. yéen a nii benn dàll bu waale sax ngeen bu ko jël ne dàll. non mais dàll bi polémique la parce que bu jamra wax na ci affaire lan dàll bi lu mu ci wax. d'habitude comme ni ah, loolu ah. moom lan la wax moom daa wax lu jubadi. Hmm? <laughs> waa jooju moom am na mois. moom am na mois am. waay waay waay juin ku ko sàkk. Euh, kon jeex na. kon kay ñoom moomuñu ko. non mais ñi fi ñuy waxee la. mais ñoom dañoo juin kenn moomu ko. moo gën a xam de. weer moomuñu weer bi lépp de. yaa ngi nii dañu am bis boo xam ne seen bisu feet la. déedéet. tabaski dañ ce am bis. benn bis tabaski gi lu muy nekk waa xaar rek. delu rek lu muy nekk nekk weer weer weer benn bis dañ ci am. borom ñaari tur yi juin bu ñu ko moomee benn bis dong lañ cey feetu. Hmm. am déet du benn bis la ñuy def seen sa yooyu ñuy def affaire yooyu noonu. mars am dañ mois de juin day am ay scandale yoo xam daa tombé rek ak juin yooyu noonu quoi. xaj na juin mooy wërsëgam. Ah. loolu la rek. jilem bi waaw non daal yi yéen da ngeen a bëgg a eh, ah, ma kooku ngay wax noonu lan la wax ci daal yi moom. waaw da koo ñaawlu. nu ko ñaawloo. comme ni ko Sénégal waru ko ñaawlu ndax leeru ko ba xam drapeau bi wala couleur bi la. Mhm. non ba tey moom la comparaison entre bi ak daal yi quoi loolu kon kay t du t-shirtu borom ñaari tur. Mhm. nañ génne drapeau ñoom ñoom xamuñu luy drapeau borom ñaari tur. nañ ko génne mu ngi ci internet. ñu xool couleur yi xool couleur yi dàll bi dañ bàyyi seen caaxaan yi xam nga voilà seen label boobu seen link boobu nu mu tudd. man damay dem màkk di sànni nu mu tudd. voilà ñoom ci yii nii lañ war a wax ñi yor ay vidéo di yàq dooma aadama yi. mais ñi yàq doomu aadama rek déglu rek ci ñii lañ war a wax ku ko defati ñoom solle kañ ko def ba yoon def liggéeyam. voilà loolu moom sëñ yàlla wax loolu lañ war a def loolu laa gis ne mooy jàmmi réew mi. mais doo toog fii benn kii bu génn fee rek nga ne ko nangama nangama nangama nangama ñoom lan la ñuy def jàmmi réew mi. waaw nañ lijjanti Ousmane Sonko Macky Sall jàmm am. loolu bu dara ko gën a nekk jàmmi réew mi. dégg li ma la wax ñoom dañoo war a dem vice président jóge ci président dem ci Sonko jàmm am. Mm. bi Abdoulaye Wade suñ euh, Abdoulaye Wade Macky Sall xuloo dañoo dox jàmmi loo jóg. ku ko dox du suñ mën doxaa. Mm. bañ fontoon nit ñi fii kenn dox fi jàmmi réew mi. kii rek fi indi jàmmi réew mi. keroog ba mu jógee ci tukki bi mhm. taxaw fii ci waa waaxu Moussa Siri bii ci port mhm. moom Sëñ Tuubaa mhm. li mu wax dafa leer naññ borom bi ni ko loo bëgg ma defal la ko te pourtant am na ñoo xam ne danoo defendre seen din ay yonent yoo xam ne bi ñu demee ci suñu borom dañ ni ko la nga ñu digaloon ñun la nga ñu digaloon def na nañ ko ña nga ñu boole loon lañ la nga ñu waxoon pour ñu wax leen ko wax nañ leen ko ginnaaw ba nu fu jógee nag leen lu ñu def sama ginnaaw suñu nekku ci kooku comme défendre boppam boppam la défendre lépp sama yoon uh-huh. bi mu taxawee fii mu ubbi kaamil bi yem ci bayit bi naan wallaahu yoddoon ilaa daari salaam ci alxuraan la ne uh-huh. daal di a kam maam Cheikh Anta ne ko suñu borom xamal leen na ma yaa may ganale uh-huh. borom ne ko loo bëgg ma defal ko mu ne ko yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin in xam jami xalwara in xam jami xalwara in xam jami xalwara yaa xat yara daa ma la ko wax ñëpp waxul in xam jami xalwara murid de wala jullit de yërëm mhm. lépp lu yor bakkan di nooy mhm. waaw kooku daa gën a ko kii moo ñu gën a gore woote cant mhm. kii moo gën a gore kuy gore yonent yi fi jaar ay yonent yu bëri kii leen gën a gore li mu defal li mu def pour jullit am ko am na yonent yu fi def jaar ba dem te defuñu ko mission bi li mu liggéeyal yonent bi amul saxaaba bu ko liggéeyal yonent bi man maa ko wax macha li mu tagg ay saxaaba li mu li mu wax saxaaba yi kenn mësu ko wax góor yàlla mm-hmm. jërë ngeen jëf macha allah macha allah kontaan nañu <laughs>